waaw waaw nee naa la sëñ Modou borom jaaro bi yegg si na moom li nga xamante ni bu yegsee dafay daal di neex jaaxle jeex ci réew mi ak bitim réew sëriñu lasaar la nee naa leen seet bu gaaw seet bu wóor sëñ Modou borom jaaro bi da koy def nee naa leen moo ci mën wala li nga xamante ni mooy li saxaar da lay wax li nekk ca kanam ak li nga xamante ni moom nga paas li nga xamante ni da nga bëgg bayre bu saf sàpp bayre xaalis foo toog am li nga xamante ni mooy xaalis nomba karange ak li nga xamante ni mooy tul mën a am li nga xamante ni mooy assurance baas moom sëñ bi da koy defar waaye yow mi nga xamante ni dangay bëggante nopp ñaari nit yi nga xamante ni dañoo bëggante lool ba jéggi dayoo sëñ bi day liggéey li nga xamante ni mooy nopp ci nu mu gën a gaawee waaye yow mi nga xamante ne da nga bëgg tukki tukki tëla fu nekk nga dugg fa di la jënd li nga xamante ne mooy papier ñëw si sëñ ibbeeku bëgg li nga xamante ne mooy bayre foo tollu gars yi wër la nga yor place ak foo ti nekk yow mi nga xamante ni da nga am faiblesse sexuelle la mënuloo sa soxna dara mais soxna dara mais hémorroïde interne wala externe bu nëbb bi wala bu feeñ dañ laa ameel li nga xamante ni mooy bor kenn mënu la ko fay xanaa sëñ bi moom mën moo ëpp doole nee naa la sëñ bi benn sëriñ la nee naa la sëñ bi mooy borom jaaro bi nee naa la jaaro la ci biir jaaro yi képp ku jëflante ak moom nee naa la sungufam benn sunguf la ci réew mi sëñ morom borom jaaro bi ndaanaan la ci biir ndaanaan yi bu doon sax ko dugg ci sa waxtaan ak yow parce que man maa la ko promettre. wa yaa ma ko promettre ah wa waay wax nga dëgg de. voilà li ma waxoon noonu aussi jóguma ci. waaw man sama souhait tey mooy sama dernier événement. Uh-huh. bi may def ci lamb uh-huh. ma defee ko biir mbuur invité monde lamb yëpp ñu ñëw parce que man sama carrière yëpp dama koo fekkiwaate. Uh-huh, bu ma sañoon tey dernier événement bi may def. mbuur laa koy defee invité monde lamb yëpp ñu ñëw ñu def ko fête bu mag. Mhm. loolu ma la waxoon noonu jusqu'à présent jóguma si sama suwee loolu la. dëgg la. waaw. ndax fi Bombardier toll ci carrière am ak fi nga xamante ni fi la Bombardier toll depuis ba mu commencé bëre ba léegi ndax Bombardier mën ñoo wax nañu moom bi at moo ko dese si biir làmb pour yeewi askan wi. waa làmb bu njëkk xam nga amuloon amuloon ay ay lii ngay am arrêté amul lool amul amuloon. waaw amu ko woon waaw. mais benn voilà bu njëkk da ñaan bëree ba heure boo ko bëggatul nga bàyyi wala mën a toog ko. mais dafa am benn instant bu fi Alioune ne quarante cinq donc ñu xool ni am na nit ñoo xam ni quarante cinq ans dañuy toll seen digg doole donc ñu ne nañ ko nañ ko nañ leen yokkal. du dëgg. Uh-huh. léegi nag loolu noonu man si loolu laa tegu ba léegi fi may wax ak yow uh-huh. naa leer na léegi. tey ji xam nga loolu kon leer na ndax nag wax dëgg yàlla mbokki amateurs yi yéen ñu nekk ci live bi fi mu toll nii 233 personnes mi ngi ñuy suivre ki ñuy déglu noonu mooy Serigne Dia Bombardier champion bi te gars bindoon ci moom tey jii ne Bombardier retraité na tey jii moom moo taxaw weddil ko boppam na loolu amul jotul benn lettre jotul benn notification manager waxu ko dara waa CNG waxu ko dara kon site boobu nga xamante ne ñoom ñoo bindoon na Bombardier retraité na na ñëpp ne li gën a leer mooy Bombardier retraité wu ba léegi su amee avance day li nga xamante ni moom mooy li leer li nga xamante ni nag mooy damay xay yow nii. waaw. ma maa ngi négocier combat boo xam ne sori na lool. ah. maa la wax lii. <laughs> gars yi information yi noonu te champion bee ko waxal boppam de. moo tax tey bi ma bi ma sa gisee sànq si ngoon gis kii bi man daf ma daf ma jëli kaw sax daf ma surprendre. benn waay def na ma ndax Bombardier bu ko waa TV bindilee loolu bu féké amna promoteur bu bëgg dem doxi combat ndax du ragal yaakar na ki bëgg jox avance koku de retraité na ma ne ko loolu Bombardier moo koy tontul bopam wa lolou lolou motax mané la ñun ño far. far gi far moy tay TV ni ñu mel man ak ñoom. waron nañ bu ñuy bind yeen article ci man. ñu woma néma mbeur ñun kat li lañ bëgg bind wala li information bi lañ am. Uh-huh. bu dee dëgg la may leen dëgg la. ñu uh-huh. ko publier du ma leen weddi. Uh-huh. bu dee du dëgg may leen lii amul ñu bañ ko publier. parce que tey loo tey loo def ak ñoom danaan da nga leen di ŋàññi pourtant démb say nit lañ woon nangam nangam. kon taman doxewu ma noonu man dama bëgg lépp lu may dox mu logique suba moo tax. parce que day jeex mais connaissance du jeex. voilà loolu la quoi. waaw. <laughs> léegi gars yi nekk ci biir laa bëggoon ku nekk soo amee looy laaj xanaa champion bi Bombardier nga laaj ko ko ma njëkkee ci ki nga xamante mooy borom Allemagne borom Allemagne soo amoon looy laaj champion bi lan la. waaw salaamaaleykum euh, suñu suñu suñu mbër suñu grand frère suñu papa suñu lépp ñu lay ñaanal jàmm yàlla defal jàmm ak sa famille. mais dañoo am benn laaj rek mooy laaj bi mooy lan mooy. Euh, parce que dañoo gis ni ñu gis ni euh, comme yow yàgg nga si làmb ah yaa ngi daan ñu ngi lay daan mais dañoo gis ni comme euh, lu ñu liir quoi lu ñu liir ni yow passé âge bi mais comme CNG da lay jàppale pour di la di la dooleel pour nga bëgg a bëgg bëgg bëgg bëri yenn boy si suuf mais pourquoi yow yow xam nga ni sax yow âgé nga pour pour euh, pour bëreeg yenn booy yi pourquoi yow mënoo def nii sax man euh, euh, maanaam lu ma ko mën a waxee nga déclaré ngeen ngi no léegi man am naa âge bi comme ni CNG déclaré am naa ko léegi damay bàyyi pour pourquoi yow mënoo def loolu quoi. ok. Serigne mu ngi lay mhm. waaw. loolu xam nga loolu day def day dépendre si soit nit ki rek. Uh-huh. waaw day dépendre choix nit ki. am na tenho bàyyi bëre am na ñu bàyyi bëre te amaguñu trente ans. dëgg la. am na ñu bàyyi bëre amuñu quarante ans. Mhm. man li ma milliards est-ce que football dañ leen a jox benn âge moom dañ ko fa egg ku am 30 ans dootoo football. non soo duggee foofu dañ ñuy réeral. soo waaw damay ñëw damay ñëw. mais ma ñëw borom borom kii boo waxee. may ma après bu leeralaat. waaw waaw mhm. mais ma tuuti ma ñëw. Mhm. xam nga xam nga xam nga tey amuñu benn âge bu ñu leen jox. waaw. man yàgg naa wax si sama communication ma ni. Mhm. kenn mënu fi nekk continuer. dëgg la. man damay bàyyi Gris day bàyyi Eumeu Sène day bàyyi Balla Gaye day bàyyi Modou day bàyyi ñeneen génération ñuy ñëw. dëgg la. tey bu fekkoon ni moment bi ñu waxee ni quarante cinq ans c'est le mbër yëpp di arrêté man su ma arrêté woon si si quarante cinq ans dama naan yàlla moo dogal ne sama carrière fii lay commencé fii lay yem. waaw. man xëccoowu ma tey pour rester si làmb ji ay rester ay ay yooyu noonu non seulement que lenn rek laa ciy déploré. mooy su ma neexoon deux ans trois ans si ginnaaw ma def déclaration de bàyyi naa man sam lool sama choix la. beneen bi mooy dafa am ay nit ñoo xamante ni bu ñu nekkee ci benn mbir dañ ciy nekk ay monument. Tafa Tafa Gueye nekkoon na foofu. Tyson nekkoon na foofu parce que dafa am mbër yoo xam ne bëree ñoom sa carrière. xale biy bëree moom moo ëpp ci gañe ko mag ku du dëgg. dëgg la. man boo gisee may wax waxuma pour dama bëgg a rester si làmb ji non damay wax que ni information tey boo koy génne ci nit ki nit ki bàyyi na. Uh-huh. danga koy teg si source bu wóor. Uh-huh. wala mbër mi am personne mu def déclaration ne bàyyi naa. dëgg la. man su ma su ma neexoon tey ma xëy suba def déclaration ne bàyyi naa ginnaaw suba. loolu yow la concerné waaw. loolu man lay concerné. Uh-huh. mais nak xëccoo ma pour ay damay recevoir ci lamb ay at non non non lolu xalaatu hmm. ma lolu leer mais lima bëgg rek moy tay information bi ñu jàllale bala ñu ko doon hmm. jàllal tay man ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu laaj mo paré ok ok man ko sama xalaat dëgg la kima euh, euh, tia léegi looy laaj sun champion bi bombardier rapidement tia looy laaj champion bi bombardier rapidement ay ca ba salaamaaleykum grand ñi lay ziar delo ziar ba am nga tawfex rek ñun man de wax deug yalla sama mbeur nga mom mais information bi ma ko déggé mom xawna jaxla touti hmm, jërëjëf waaw ndax nit nit mom lepp loy wax rek dafa war doon lo xam lu légal la wala lo xam ni nit ki mo la ko wax wala nit ki mo la ko bindaloo hmm. xam nga ñi xam nga ñi yow la ni ci war man ma ngi fi si diaspora mais tout temps yow lay ci war sa kàddu sa waxin sa doxin sa jëfin loolu rek lu rafet la yaa ngi dégg man toppewu ma nit pour da nit man kàddoom laa koy toppee ak doxinam ak jëfinam mais loolu du yoon tey bi day nit waroo tëb tëb rek ni ka diw baay na làmba te diw jox la benn information information moom diw xamaloo ko dara xamaloo ko bëseem xamaloo ko dara nga tëb tëb ni diw bàyyi na làmb noonu man d'accord ma si ñooñu ko def tay bi tay dañuy yàq làmb ñu ne làmb jëf semaine bi passé semaine bi passé benn kàddu guy defar làmb ñëwu fi. dëgg la. Bombardier mi la si biir mbuur monument la si biir làmb. fi toll nii bu nuy wax làmb champion bi Bombardier mooy champion làmb kon lépp lu ko waaye di wax war waxal si làmb da ko war segg seggaat ka nga xool ko ba pare.

di kontaan ci Bombardier bim mu ci waxtan wi. di ko féliciter di ko ñaanal jamm fu mu jep. jërëjëf. ndaxte nek na champion bo xamanteni ni kenn mës sa dégg ñu né Bombardier mo fi wax lu ñaaw wala moko fi def. dédé mosu kaa def dé té lool lañuy lool lañuy dayé doyé mak ci am réew. kaadaru baye lamb gi nak man gisuma mom pour mu baye lamb man sama gis-gis. ndax su ma sañoon CNC tamit da koy yokkal ndaxte mu may xale yi sens ndax mu may xale yi sens intérêt xale yi la. moom gañuwul ci tamit dafa am lu mu waxoon lu am solo ne buy bàyyi làmb tamit mbuur lay civilé. <laughs> ma di ko laaj ndaxte li waxoon ci ne day may sans Thiès sens mi ngi ci ba tey. ok waaw ma am tamit naar naar naar. waaw. nga bal ma tamit amna ko xamanteni mi ci laaf bi tamit ku ñuy wax Mor cassé suma ma tamit ding ko dugal bu mané nek ma ngi jéggalu bu baax. di kontaan jërëjëf champion bi da ngay bay champion bi tontu lool après ma ay question yu mako laaj ndax dañu dafa nek ci yoon te mako téw bi hmm. légui Bombardier lo li mu wax noonu ci xam Sa Thiès mi nga waxon dang ko bay sans wa loolu joguma ci motax la négocier ba mu sori. Hmm. côté yoy la rek. ok xam nga.

bi ma koy jël ñëpp ne lii du yoon waroo ko jël booy bi dafa ko fi dara nanga na ma ni leen làmb ñetti étape moo fi nekk da ngay ñëw bëreeg say rak say say mag. Uh-huh. bëreeg say morom. Uh-huh. bëreeg say rak. Uh-huh. te ñun bi ñu tollee si ñu may ñu chance Tafa Gueye daf ñu may chance bëreeg ñun. Gallo daf ma may chance bëreeg man. te noonu Tyson ba mu nekk roi de arènes kon boo yeggee ba au li nga li nga man mooy ñu jéem a ku nekk jël benn booy ñu renforcer ci kaw. Uh-huh. tey tey ñaari booy yi ma mujjee bëreel. waaw. seen combat yi fu mu leen yóbbu. billaay sa combat bi nga bëreeg ñoom moo leen yóbbu ci kaw. ku si nekk kenn mënatu laa bañ ci làmb. déedéet. parce que ku siy wax daf naan la bëre naa bëre naa ak Bombardier la lay wax. Mhm. Ah, ok loolu nag loolu dafa dafa am solo. man maa ñëw 2009 2009 laa njëkk a wax ni. nañu renforcer ci kaw mooy ñu jël ci xale yi bëreeg ñoom. Mhm. pour ñu mën renforcer ci kaw. Mhm. parce que jamono boobu man Tyson Yékini rek ñoom su nekkoon di bëri suñu biir. baax la Sa Thiès Eumeu Sène jàllul lan la ko wàññi. dara dañuy waat yéegat. kon man wax ne nañu nañu nañu nañu may xale yi sens. ñu te logique boobu si ma ko ñu ko def man laa bokk. kon loolu c'est très su mu toll tey te Sa Mhm. AS fu mu toll tey examen yi mu def yu bari daf ciy def si échec. waaw. allo Baba Dieng dafa échec si boo. ak pour génne tapate leen bi tapate leen bi waaw ñu ngi lay degg dafa échec si Malick. Malick Niang tapate leen bi. tapote leen laaj bi tapote yi tapote leen live bi tapote leen live bi tapote leen ko yéen ñu nekk ci live bi tapote leen tapote leen live bi allo champion. dafa échec. ñu tappate live bi ñu tappate ñu tappate ñu tappate ndax li Bombardier di wax mi ngi dagg ñu tappate ñu tappate ay ca champion oh gaa ay ñu tappate live bi ah ndax fi mu tolloon neex na trop ñu tappate live bi Serigne Dia Bombardier soo mënee déplacé tuuti rek si nga toog dafa xaw a mel ne ñàkk réseau soo mënee déplacé tuuti te gaa yi ngeen tappate live bi Halo. Gaay ñu tapate live bi ñu tapate ñu tapate ñu tapate live bi tapate len live bi réseau bi la Mor Kase maa ngi lay ziar. Banar ma ngi délo ziar yaa si jàmm. maa ziar champion bi moy wax nonu Bombardier nga nuyu ko waxtaan ak mom. waaw champion bi ñu koy ziar moom réseau bi daa mel dafa xaw a faible nag quoi. waaw réseau bi dafa xaw a faible waaw ci a ci Bombardier na Bombardier def na retraite mooy affiche bi ma affiché ma dégganteeg Bombardier Bombardier na ma. defal live invité ma ma leeral looloo waral dugg si Bombardier te bi mu duggee li mu fi leeral mooy loolu amul tey amul ëllëg carrière am retraité te am na avance bu mu négocié ba léegi ngeen dégg combat bu taxaw Bombardier ma wax loolu léegi nii.